asalaamaaleykum ami internet ci télé Sénégal TV amati mbégte contente di jàkkaarloog yéen euh, tey nag di ngeen am émission bu spéciale ndax boo ngeen gisee kii ñu dalal tey jii di suñu papa Souleymane Faye ñu koy wax jéego <laughs> tey dangeen di am émission bu spéciale ndax dafa def lu rëy ci musique sénégalais yaakaar naa kenn dootul waxati Sénégal te tuddoo Souleymane Faye muy monument euh, xam naa dañ koy daal di bàyyi mu daal di nuyoo rek ñu daal di doxal père nuyu nañ la. asalaamaaleykum euh, télé Sénégal ma Souleymane Faye maa ngi nuyu ah gërëm ci invitation bi waaw gërëm Sénégal yëpp ñu ñaan ne yàlla andi andiwaat jàmm ci dëkk bi. amiin amiin dëkk bi dafa xaw a sonko. dëgg la dafa xaw a sonko. <laughs> waaw waaw père wala. waaw mais yàlla na jaar mu dëkk bi. Sonko génn si jàmm ak salaam. loolu lay ñaan loolu lay ñaan amiin incha euh, comme ni ma leen ko waxee woon la rek monument la fii euh, kenn dootul waxati Sénégal te musique sénégalaise te boole woo ko ci. Euh, yàlla def ci moom loo xam ne nag dañ ko koy nangul mag ñi bëgg nañ ko xale yi bëgg ko te dafay mel ne ba mu fi nekkee di def musique ba léegi musu fi def loo xamante ne lu ñu koy xeebeele waaye rawatina nag muy def loo xam ne boo koy déglu da nga koy bëgg da ngay bëgg da koy bëgg daal. per fan la nekkoon ak père boobu ba léegi dañ koy gëj gis des fois ci lan la nekk. maa ngi Sénégal c'est que ma xaw a jàpp sama ñaamur rek. ah euh, ma su ma liggéeyul kër ga. su ma liggéeyul rek kër ga. yaa ngi toog. maa ngi ci xale yi maa ngi ci doom yi. ndeysaan ak sët yi. macha allah. waaw ma liggéeyul rek maa kër ga dama fenn mais maa ngi fi nag. mais yaa ngi fi maa ngi fi yaa ngi tëgg comme ni ko gars yi di defee di dem si yenn bërëb yi di tëgg di def comme yow musique lañu la xamee. Eh, di bégal sa sa fàtt maa ngi joué parce que mooy sama métier moom ci loolu laay dund maa ngi joué. Mhm. c' que fixe ma nag fixe ma fu ñu ma invité rek laay dem. d' fixe ma. mais maa ngi joué trois quatre fois par semaine. quatre fois par semaine. Euh, trois ou quatre fois par semaine. ok maa ngi joué Saly maa ngi joué euh, Saint-Louis maa ngi joué Thiès. Mhm. maa ngi joué Mbour. Mhm. Dakar. Mm-hmm. ça va ça va ma sant nga wax fi ngay tëgg balaa ñuy tëj parce que dafa bari ñu la bëgg lool te gisatuñu la. bon saa ñu xam fi ngay nekk ñu la fay. bon nag su ma invité lay jógee. ok temps yi tous les maa ngi fii le jardin. ok acoustique. Mm-hmm. apéro. Mm-hmm. mercredi maa ngi villa villard bi nekk euh, rond point yi Ngor. Euh, jeudi maa ngi Saly. vendredi souvent maa ngi Playa. ok euh, deuxième partie Pape Cheikh yooyu. ok ñu xarmat daal xar xarmat. d' accord xar ñu xarmat ñu xarmat waaw. Euh, ci xarmat googu laay jaaree sax di laaj ba xam père. war na toll fii ak fi mu toll nii ak li mu def ci musique fu muy xaree mat lan la jot am ci lan la jot a réaliser ci musique bari na bari na de bari na parce que euh, am naa ci ay kër. macha allah. Euh, am naa ci ay jabar. yóbbu na sama jabar Makka. ah tabarkalla waay. Euh, maa ngi defar sama kër yaay maa koy defaraat. macha allah. Ah, am na ay doom am na ay sët. Hmm. bon am naa compte banque mais bariwul mais xaalis nga fa. <laughs> yàlla na gën a bëri waay. xaalis nga fa euh, xale yaa ngi màgg c'est l'essentiel pour moi euh, sama alal mooy doom. njaboot man doom mooy sama alal. dëgg la doom ak sët man yooyu laa gëm donc yàlla def na. j'ai eu la chance de vivre ma vie. Mhm. dox naa sama dox dund naa sama dund. léegi ma toog rek uuf njaboot gi rek waa waaw te loolu amul prix. ànd ak bon yàlla may na ma du ma fay loyer. ok te Sénégal boo dëkkatee fayoo loyer tu es milliardaire. dëgg ah, yàlla yàlla may na ma loolu. dëgg donc. Euh, maa ngi sant yàlla daal maa ngi sant yàlla maa ngi sant yàlla macha waaw ab da day sant yàlla. sa njaboot gi nga xam ne yàlla denk na la ko macha allah. est-ce que kenn am na ci koo xam ne jël na relève bi comme de jéem a def musique bi ngay def wala. waaw man sama doom yëpp dañuy woy. Uh-huh. sama doom yëpp dañu neex baat. mais man jàng bi laa gën a. moom nga gën a bëgg ñu def. nañ jàng daal waaw parce que jàng dafa am solo. dëgg la bon bu ñëwee sama kër bu bàyyi yor hectare ngi joué. ñu mm-hmm. ngi woy tout temps euh, am na si ñu mën a woy nag waaw mais. dèjà am wala jigéen am góor a jigéen ñëppay woy. Hmm? waaw actuellement maa ngi liggéey ak sama ñaari doom yu góor. Mm-hmm. su ma woyee ba sonn ñamay aw. donc euh, may sant yàlla quoi. dëgg la sant yàlla bu baax waa sant yàlla baax Angario seré. Angario, Angario seré. durant li ñu toog nii yëpp to gisuñu la père ci lan la nekk laajoon naa la ko sànq mais dama ciy ñëwaat parce que man war nañu xaar ci yow chaque année nga génn ñu benn album parce que macha allah xel mi mi ngi fi. yow ku ne xam na ne ni ngay ni ngay wéyee sax dafay jaaxal ñu bëri parce que da génn foo xam ne kenn xalaatu ko. waaw parce que man euh, bu jëlee noon de chaque année nga génnee chaque année nga génnee loolu baaxul. baaxul parce que da ngay mujj génn da ngay génn loo du saf dara. doom benn sens. wala nga obligé di wax loo xam waxoon nga ko ba pare. ok loolu mooy génn génn génn génn toog naa presque dix ans génn ma génn ma dara mais nag maa ngi pare album bu dëgër. Ah, bu bees tax. nit yi dinañ xam ne amul tàngal ceeb. ok ay studio bees. Mhm. waaw loolu moo c'est plus intéressant. mbalax bi wala acoustique. Euh, a mbalax ay ay ma ci trop. acoustique ngay <laughs> mais su ma woon géwél moom naa am xaalis bari ma woon géwél moom am naa xaalis bari. kon di nga fi toj de. waaw ma woon géwél du baax. macha allah. waaw mais euh, ñun ñu ne musique euh, musique du bon la ñuy def quoi musique boo xam ne pour adduna bi yëpp la. Mhm. mais musique boo xam ne comme olof lay way. Mhm. bon Sénégalais dañ ci gis seen bopp. Mhm. dañ ci gis seen bopp. d'accord dañ ci gis seen bopp ñu gis la nga nekk ci musique ñu xam ne loolu mbirum zaayir la. mais père à chaque fois boo woyee dafay mel ne boo koy diglu baatin ngay gën a gis. père fan lay yégee bay bind wala wala taxi. yëg yëg yi yàlla rek. yàlla ma sam lépp yàlla la. macha allah. lépp yàlla la donc euh, alhamdulilah ma ko sant yàlla nag waaw. dañu am chance su juddu ci diine yaroo ci diine màgg ci diine donc yëg-yëg euh, yooyu yëpp yàlla la. yàlla la ak sëñ Touba ak maam Cheikh. man ñooñu laay sëñ Touba maam Cheikh. yooyu mooy samay inspiration. safar gi ñu génn bu yàggul. waaw ak euh, ndigal yi nga xam ne sama yaay dafa ma jox ma nekkee xale. Hmm. ma yedd yi ma daan yedd ma nekkee xale. Hmm. lool moom mooy aar ba léegi. ba léegi ba léegi moom mooy aar waaw. lu hmm. mu tax euh, te man soxla ma inspiré wu pour way. ok ah, li dund rek ngay way li ngay dund. ci zaahir la mais yow ci baatin ngay way. waaw baatin yëpp xam nga xam nga euh, euh, euh, zaahir mën nañu ko baatinal waaye baatin baatin kenn mënu ko zaahiral. déedéet loolu mooy bi quoi. d'accord donc man sama lépp bu ma zaahir ak baatin daal la boole. te àdduna loolu la zaahir ak baatin la waaw. Mhm. xew-xewu jamono ak ni ko yàlla bëggee ak ni ko jamono bëggee. ngay mhm. xool def ko nu mu gën a rafetee rek. d'accord def ko nu mu gën a rek. waaw loolu. c'est important comme li may wax rek. dafay nekk dafa dafa am ñoo xam ne foog ñu leen di wone ndax ay monument lañu ba pare dañuy dañ doon woy démb mag yi xamoon leen mais dañ doon dafay mel ne li ñu doon woy démb tey la ko xale yi gën a soxla père li nga doon woy démb dafay mel ne boo koy déglu tey day mel ne tey tey tey ngay woy. waaw parce que booy woy dangay ngay woy pour suba man damay woy pour suba damay woy lu ñëwagul. d'accord waaw da ngay woy woy bi lan la mooy euh, di la artu di la di la avertir. Hmm. Euh, di la yëgal di la dëfal euh, di la giifal. loolu la sama yooyu di jëriñ da la defal dina la giital dina defal dina la gi giifal. Mm-hmm. dina la wétali. Mm-hmm. te dina la aussi wan yoon boo xam ne boo ko toppee rek jàmm rek ngay am. d'accord te xam nga jàmm mooy lépp. dëgg la jàmm mooy lépp waaw waaw jàmm mooy lépp. d'accord père sànq dama la wax si biir wax nga ne da nga judd ci diine nekk jullit àqan te damay dégg sax nga ne yow murit nga. waaw Baye Fall. Baye Fall pire. waaw eh, eh, nag yàlla xam. yàlla na yàlla na la ko yàlla ah, def Baye Fall Baye parce que ku nekk bëgg nga loo nekk nga nekk ci eh, dëgg-dëgg. Euh, père ñu gis la des fois sa jël yi ngay takk chaîne yi. waaw ñu gis ci croix nga koy takk. waaw croix ak Jésus ak Mohamed. man ñaa ñu laa gëm. ñooñu nga gëm. Mohamed ak Jésus. ñoom ñaar laa gëm mais man côté Mohamed laa féete. Mhm. mais gëm naa Jésus. fu nga ok peut être Mohamed la féete mais man gëm naa Jésus. d' accord te ñaari yàqul dara yàqu ci mën nañu ko boole dara yàq dara. d' accord bañ naa ko ba dem naa Touba ziar suñu mag mhm. dem naa ba Rome ziare Pape bi. Mhm. donc man ñaari diine yi yàqalu ma dara. d' accord ah, dérangé ma am dérangé ma kon père euh, polémique bi nga xam ne moo am diggante démb ak tey benn artiste bu ñu doon wax JP mu mu génn àdduna euh, benn oustaz génn ñu koy oustaz Modou Fall. daan ne jullit dañ koy tere ci sariya mu mu ñaanal koo xam ne bokkut ak moom diine kon loolu yow lan nga ciy wax. d' ci. d' d' accord ma ci loolu. d' accord ci. man ay bidaa la <laughs> ay bidaa la jullit catholique yëpp nit la euh, ku ne. même ku yàlla sax dañ koy ñaanal. sagatuma ko gëm yàlla. bu dañ ne alxuraan moo ko wàccee ñu ne. war gëmoo alxuraan wax na loolu. gëmoo ko na ko. d' accord nañ ko wane boog. ñu wone aaya bi. ñu wone preuve bi quoi man gëmuma loolu. Euh, ni ku gëmul yàlla sax bu dee dañ ko war a la sakatumul ak ko gëm yàlla chrétien bi dafa gëm yàlla. te yàlla yàlla bi ñu gëm la gëm. yàlla bi ñu gëm la gëm ñun ñoo bokk yàlla ñu ne chrétien yi ñoo yàlla benn yàlla bi la donc lu ñu wax noonu amul man gëmuma ko. d'accord ku ci mel ne Ahmed Cissé tamit dafa génn bi Ousmane Oustaz Modou Fall waxee loolu. Hmm. Euh, wax ci wax yu xaw a tegginu nee na alxuraan ay léeb la. yàlla neen da ko bindoon di ci taaxuraan est-ce que jullit war na wax loolu. kaw day xaru. voilà est-ce que jullit war na wax loolu. mu ne kaw day xaru laa wax. c'est ça. boppam boppam lay yàqal rek. kaw dafa mel ni ki muy wax rek. mel ni ku jëfur. xam ku jëfur. Mhm. dum rek mooy jëfur ah. dëgg la nit na jëfur. kon dafa alko. du nit ku baax. <laughs> man de gëwuma ko. oui gëwuma ko gëwuma ko. li mu amul. dëgg la ku mel yow nga xam ne des fois dañ lay gis ngay jàllale yenn message yi. wa ma ngi yëkkati noonu naan wax dañuy wax benn baat rek nga nga ko mu signifier lu bari bare lu am na solo na solo trop. am na bu ma gis nga naan jigéen du toog ci ay biiru góor naan jëkkër laa bëgg. da koy um baaxul jigéen warul ndax man jë lay wër. sama genre yi dañ koy rek non loolu mooy loolu lamb <laughs> yaa ngi yaa ngi lamb. <laughs> père lamb moomee. non non bu <laughs> non bu kooku kooku salit la. ku ne ah kii amul la. dafa salit. dafa salit ndeysaan. waaw ah, ah, salit man jëkkër laa bëgg de na. bu bëggee jëkkër ñaan ko yàlla rek te noppi. dëgg la. waaw jëkkër laa bëgg am na yoo xam ne dañ lay takk léegi foye la fase la. bàyyi la waaw. Ah, yooyu baaxul yooyu baaxul góor mooy wut jabar mais jabar du wut jëkkër. dëgg la baaxul baaxul baaxul. dëgg la père euh, mu mel ne ci loolu laay des ba léegi. Euh, dama mës a gis sorti boo def di wax ne fête yi dafa bëri Sénégal te dama koy dëggal man jigéen laa quoi mais. des dama koy compte. ba bëri fête trop. waaw nga wax ci loo am solo ne borom ko borom kër yi amatuñu euh, espace boo xam ne mën nañ fa dajale. loo dajale dara doo mën denc dara. fête yi fête dañu bari y trop de fête te ñun fête bu ñëw ñu feete ko. mais fête boo xam ne du suñu fête sax dañ koy. dañ koy fête bu fête bu ñëw rek fête la quoi. waaw le Sénégalais aime faire la fête. jël financé. waaw fàtte ay borom fàtte ay suuseem tey la 31 rek lu ma mun ti am ma def ko ci lépp ba lépp xaalis sax dugul ci 31 benn bés mu jeex après bor yi topp la amul benn sens. amul sens. defal li nga mën. même gàmmu màggal yi boo dee màggal amuloo mais toogal ba beneen yoon. ba mais jarul ngay rey si bopp. parce que chaque année day am. non non waaw chaque année day am. moo yaakaar naa sénégalais seen problème mooy euh, seen i besoin amuñu amuñu kiyam amuñu xaalisam. suñu bëgg-bëgg dafa ëpp seen seen seen mën-mën. dëgg la léegi sa bëgg-bëgg bu ëppee sa mën-mën la yow sa àdduna du mën neex du neex mukk. voilà euh, alors père kon loolu yaakaar naa ne yow ku ku ne xam na ne yow père euh, président de la république muy Macky Sall. Hmm. sa xarit la. waaw sama xarit dëgg moom. est-ce que moom amul lenn loo xam ne mën na ko ci def parce que moom mooy njiitu rew mi xam naa ne sax moom peut-être li ko fi des a bareetul est-ce que mënu ci woon dara. non kooku àdduna la. munu ci dara moom. non kooku àdduna la fi lañ koy fekk fi lañ koy bàyyi mais euh, euh, bu ñëw nga féete ko moom bu tabax. doo tabax. doo tabax de doo gaaw a xulóog ma sama moom. dëgg la. fête bu ñëw nga féete mais bu bu bañ ko la meree. si si fête bi ñëwee fekk man. man sama njël rek laa yor sama njëlu kër rek laa yor. Mhm. feet nga ñëw nga bëgg a feete may la sama njëlu rek laa yor du ma ko laal. wax dëgg yàlla. bi nga mere ma sama yoon ñëw ci. te ki lay mere ba lay jël loo sa xaalis di ko def ci moom bés boo tumurankee du la dimbali. non ba fay passé la ñu ne en dépense bi nga nga nga yokk lan. loyaas bi ñëw ana xaalis bi di ko def lan yooyu ay sonn après yéen am yoo xam boo ko nangoo yow yaa ko nangu la yaa xam mais man bu feet ñëwee fekk ma jekk ma feete comme ñëpp bu jekkul ma waaf bàyyi feet bi jàll. c'est ba ba leneen ñëw. beneen yoon waa comme ça ma sonn. mais mënu ma jël sama alal ma yore sama njaboot. noose ko ci benn guddi mu jeex ma yeewu suba sax jigéen ñi nag dañ ci war waxal. surtout waaw ñi ñooy pousse góor yi ci yooyu. surtout jigéen ñi war a am xel yërëm seen jëkkër yi. yërëm waaw góor am na góor yoo xam ne dañu dañuy complexé. ki fi nekk rek moo fi nekk mais. kon dañuy complexé am góor yu complexé seen kanamu jabar. Euh, ba léegi damay des ci euh, sa diggante président de la république. Mm. sa xarit la da nga koy wax tout le temps. fi mu ne nii boo amoon loo xam ne da nga ko koy conseillé di ko ko wax lan nga koy wax. lu koy xalaat bon xam nga man mbiru justice xaw ma ci dara. Mhm. mais li ma gën a euh, métti daal mooy xale yu ndaw yi ne ci kaso bi. tout tànk yi tout tànk yi surtout tout tànk xale yu ndaw yi. Euh, baaxul quoi ñu ngi doon def examen seen jàng yàqu ak yooyu. waaw waaw waaw ma sañoon daal waaw. Euh, alors ba léegi dama leen di wax rek moom léppam njëriñ la macha allah dañ koy ñaanal mu gudd fan moom père. père xam naa duñ la bari bëri xam nañ ne da nga war a joué ji nii euh, ambiance def live bëggal sénégalais bëggal nit yi comme ni nga ko mos di defee mais bëggoon nañ nga ñëwul ñu suul suul maanaam histoire boobu da nga ko da nga wax mu nekk histoire boo xam ne te lii ba léegi nii est-ce que nit yi ñu ngi koy bàyyi xel teel a suul teel a suul ba léegi ñu ko def waaw est-ce que nekk yàkkamti suul nit ñu ngi suul ku dee de ku deewul ba léegi ba léegi dañu yàkkamti suul ah da nga war a woo médecin war a ko suul te bu nekk médecin ñëwul. la médecin ñëwul xool ko bu médecin bi siti wax neen dëgg la dee na soog ko suul mais fii ba nekkee ci coma coma ñu mën de ci coma nokkatul pan ay weer. ñu jël yóbbu ñu non fii ñu xaar weer benn bés ñu suul la. Mm-hmm. wa man sama yaay ma jur dañ ko bëggoon suul te deewul. loolu la loolu la loolu la. Ah, ba léegi am na benn xale dafa ñëw ne mais papa man son doom bi am 13 ans. Mm-hmm. ñu ko bëggoon suul ñu da koy booy deewul. Oh, sañ yàkkamte suuf noonu vraiment. programme dee nañu nga ngandam baas rey mag bu rëy nag bu rëy nag. dajal la may wax ñuy mbaxal. waaw dañuy def baxal ay mbaxal ay dëj ngay mbaxal. dëgg la yi ñu noos quoi dëj dëj ñuy noos. defar was. waaw waaw waaw waaw yooyu waaw. def caayeen ceeb bi dañ koy def euh, soweer boobu dañ koy def. léegi non c'est dangereux c'est dangereux. et puis léegi euh, gis nga jigéen ñi natt si ay dëj natt si ay dëj ñooñu. boo nekk ay bët di di natt. di caxal lañ koy tuddee. mais ay la. waaw natt la. léegi bu bés boo deelee ñu natal la loolu moo tax ni nit feebar ñu koy bàyyi mu dee duñ ko faj ñu koy négligé ba mu dee. Hmm. pour ñu nattal leen léegi business la quoi dee léegi. dee daal léegi amatul benn sens fii c'est dommage quoi c'est donc père fi ñuy tëjee mooy xam naa rek bu ñu la téye euh, juste rek sa façon habillement bi ñi ngay soloo des fois père kenn du ko comprendre li bi sol xaw ma robe la xaw ma marinière fii seen sen seen seulement ci kaw seen nag ah. xam nga seen liberté bi nga am ci kaw seen dëgg la amuloo ko ci mbedd bi li may sol ci kaw seen bi dama ko sol ci mbedd mi de dëgg la dafuma sax lu ko sol ci mbedd yaa ngi yaa ngi waaw waaw mais ci kaw seen spectacle mooy waral ngay def yenn yi dëgg la bu spectacle la laa si jublu nag spectacle laa si jublu yéen ba sol robe xiin mbal la dina ñeme naa ko sol. waaw ngeen bu sa digg doole dafa gis clip ban façon tubay nga sol foofu. sa digg doole. donc ngeen bu vert bi. xaw ma loolu waaw waaw salopette la. combinaison la xaw ma la salopette la. waaw donc ah. yére yére olof la mais mooy bu fecc la. xam yëre yoo xam ne spécial pour fecc. pour fecc la boo gisee ballet africain yi façon yëre yi ñuy sol. spécialement pour fecc la. Mm-hmm. mais c'est très joli sur scène. d'accord loolu laa loolu pour fecc ak spectacle rek mais bu ñu paree teg ah, parce que Ouzin Keita ku ci mel ne Ouzin Keita dafay mel ne yow lay copier ah. moom ah. ko neex la sopp. parce que sol moom dafa mel ne ko ah yow yaay il est spécial. dëgg il est spécial. <laughs> mais sa digganteeg artistes ah, yi. ah nice. nice. ñëpp ñëpp samay gars. maa ngi dabalanteeg ñoom di wax. ñëpp samay gars lañ waaw. Ah. parce que yëpp dañuy gis ne man si suma soxoru eh. eh. may ñaanu ma. dëgg la donc dañu respecté dañu accepté donc du ma du ma concurrent. dëgg la du ma con bokkuma ci concurrent. yow dañu war a topp si sa ginnaaw sax. du ma concurrent ma dama ñëw ma ñëpp laa bëgg quoi. dëgg la amul benn problème. bay faal nga. képp kuy woy ma demee seenam day kontaan. ndeysaan bu ko sonoon ci dara quoi. artiste yëpp ñëpp laa bëgg ñëpp laa bëgg. dëgg la amul benn problème. macha allah père. xam naa doyaluñu nag parce que question yi sax yàlla xam na ne jeexul ba gis nañu ne uh, gars yi ñu ngi toog di la xaar. waaw war a dem. xam naa dañu naan benn message uh, ci Waly Waly Seck. Waly Seck. nekk Pape Souleymane Faye bind na benn woy bu rafet ci yow. moom pour Waly. waaw Waly kon la nag. benn buñ muy gisul lu bari. Mhm. sax dama ngi daw sax. kon il fallait mu seet si la pour mu a jot si loolu ah. waaw nekk ngeen mu woo ma rek. mu woo woy boobu bind naa ko teg musique bi sax pare na. ok ah enregistré rek moo def. soo am na studio taf taf ñu def ko waaw d' accord waxal ma ko Waly. Waly sa père Souleymane Faye. waaw ñu ngi lay xaar nee na bind na benn woy pour yow. te yaakaar naa ne Souley père Souleymane Faye ku ma woo ne la bindal naa la texte danga war a daw ndax li muy bind lépp njëriñ lay doon lépp njëriñ lay doon Euh, li ma wax sànq rek laay waxaat li nga doon way démb la woon mais tey boo koy déglu dafay mel tey ngay way loolu lu ma jaaxal la man euh, li ma doon waxoon sànq nag leen émission bu spéciale ngeen di am. Père Souleymane Faye la ko. doylu ñu mais nag naan li duuf ci cin li xaju li duuf ci nag bi xaju ci cin li. ah. li dañ naan li duuf ci nag bi xaju ci cin li. li ci. li duuf ci nag bi. xëy cin mais loolu ne noonu nuñ ko a waxee parce que damaa jàpp ne li duf ci cin li li duf ci nag bi xajul cin mais nag bi bu duggee ci dina xam ne. non <laughs> du sotti. koy gi nag sax xajul si cin. xajul si cin de. waaw waxi waxi olof la mais olof nag lu mu wax rek am na am lu mu ci jublu. dëgg la am lu muy tekki seen wax yu gàtt yooyu. dëgg la waaw dégg daaj. père tëjal nga dénkal ma xale yi nga xam ne jeunes yi nga xam ne ñoo nekk actuellement. waaw waaw jeunes yi. war a xam bu ñu war a bu ñu yàkkamti parce que kenn ku nekk rek am lu yàlla def si yow eh, yàkkamti sa wërsëg baaxul. Hmm. li tax ngay daw ba gaañoon. voilà li meen encourage ñu bàyyi gaal yi ñuy dugg jotee seen bopp ci mbedd bi. Hmm. voilà loolu la quoi. nag père ñu koy dugg dëkk bi. waaw kay yow fekk ñu lay woon chaque jour nit ndox mi. loolu woon tax nga dellu ginnaaw. boo amee xel woon dellu ginnaaw. bu fekkee ne ay téeméeri xale yu dem fukki ñëw ci yow doo dal ginnaaw man alal jarul ma loolu. dëgg la waaw waaw nañu nañu xoolaat seen bopp daal. dëgg la kon daal aar bi nga bëri nag. Sénégal TV père Madiaw Diaw Madiaw Diouf. fekkee déwén day bëgg bu a baax. voilà mu ngi fële ci Kër Sampé daf lay bëgg bu baax moom du mu taw bu baax. ndax taw bu bu baax ndax jur yi am lu ñu lekk. mais père am na ñoo xam ne tawee yi béy nañu def. waaw mais ñi nga xam ne buy taw dañuy toog ba suba nag. waaw mais ñooñu dañuy toxu. añ toxu quoi. jërëjëf père Thagoldou. merci ma fille merci beaucoup. jërëjëf a merci jërëjëf. jërëjëf baax a baax. jërëjëf euh, à bientôt. li xam ne moom la ñu amoon tey bi père Souleymane Faye. Euh, sax doyaluñu mais nag dafa di dafa war a dem jouer ji nii nii xam naa dañuy dem ànd ak moom ci ci ambiance bi. ngeen ngeen bëgg tuuti saral xol yi <laughs> ah, jërë ngeen jëf euh, Télé Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon topp bopp ba léegi. à bientôt à bientôt merci yaay la mere damol ko lu liggéey yaay waram la yaay maya tee saay la mere damol lu liggéey yaay waram eternity. baaraam na mu ñaan sa borom la borom bi